ngeen jot mën a jot moo leen vidéo ak tëj ay jàkka dëgg yaatu na sooy ba nga ne Màkka jëkke jaar ci yeneen réew jaaraat ci yeneen ba agsi ci suñ réew mi waaye damaa jàpp mbir mu mel noonu réew mu organisé wu mu nekk bala nga cee àgg war nga am foo jaar mooy diisoo ak ñëpp ba xam ndax tëj jumaa yeeg jàkk yi ndax loolu mooy solution bi gën wala am na leneen luñ mën a def lu dul loolu li wér mooy am na leneen luñ mën a def su fekkoon ne jël nañ xalaati ñeneen yi lu bokkul ak tëj jumaa tëj jàkka parce que jàkka ak jumaa foofa la jaamu yàlla bi di sàkku ji yërmande sun borom tabaraka wa taala su jaaxlee foofu rek la mën a làqu ci su ko amatul day mel ni jën woo xam ne génne nañ ko ci jéeri ji amatul ndox moom dellu su boobaa tumuranke koy dal ñaaree bi communication bi doon am diggante imaam yi ak ak seen population yi ci ci minbar yi su daggee eh, nit ñi mën nañoo nekk ci jaaxle koo xam ne ñetti baat rek imaam mënoon leen ko wax ñu delluwaat ci yàlla xamaat lu xew yii ñuy digal nit ñi naan leen toog leen ci kër yi te mënuñu ci dara su doon nit yi diine yi ñoo ko wax ak ñoom bari xamal leen dëgg-dëgg li lu mu doon kon ba tey dellu nañ ci ci seen kër yi toog li leen jafe lépp nitu diine mën nañ ko ci ñoom waaye jéemuñu ko dëgg la mëneesoon naa jël ay matukaay yoo xam ne kenn du wàll sa morom bu dee ay masque mën nañ koo am kuy julli si ku nekk mën na koo am bu fekkee dafa laaj espace ay espace mën naa am ci biir jàkk yi bu dee ay raxasoog ay gel ak ay yu mel noonu yooyu yëpp mën naa am kon bala ngaa tëj bar laajal nit ñi ba xam am na lu mënees a def loo xam ne mënees naa continuer di julli di ñaan seen borom te def julli mbooloo di xutba seeni xutba te mbooloo du te jaxasoo du am loolu nag euh, wax dëgg yàlla defuñu ko dañoo jékki-jékki rek ëpp group jóge fële daal di ne dañoo war a tëj jumaa yi ak jàkka yi état daal di ne ah waaw ginnaaw imaam yi wax nañ ko nag kon boo jeex na daal di génne seenub décret nañ ko tëj euh, loolu daal di am jàpp naa ne man ak yàkkamti gu gaaw a gaaw a gaaw am na ci goo xam ne sax wax dëgg yàlla euh, man bett na ma bi ma ko déggee ba léegi fii ñuy wax ak yéen Mali ñoo nu ëpp ñu faatu fuuf ñaar ca lañ nu sax